thank you alhamdulilahi alladi bi nicmatihi tatimu salihat wala hawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim wa radiyallahu an jami sahabatihi wa xulafaihi wa uh, azwajihi wa zurriyatihi wa man ittabiahum bi hudahum wa ihsanihim ila yawmi ddin mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci njëriñ li nga xam ne moom la koor andi ba tey ngi ci suñu ci tël bi jotaay ak yéen ci seen émission Shukran li ñu leen di ci Dakar Midi point net ñaanal fadilatu Cheikh Al Hassane Sène yal na yàlla dimbale ko te jàppale ko li ñu moo ko na ko ci yàlla dooleel ak ñu mu ànd ak njabootam ak ay rakkam defal yaa ngi takk suñu jotaay di ko dégg euh, tey nag njëriñ li njëriñ loo xam ne yàlla dëxal na ko ci biir koor ak ngëneel loo xam ne jullit am na ko ci boo xam ne boppam Euh, mbokk yi adduna dafa jafe te yàlla bu ñu bindee bàyyeewuñu suñu bopp ñun kese ndax waxoon nañu ne inna sheytaana aduwun lakum fattaxiduhu aduwwa waaye innama yad'u xisbahu li yakuna min ashaabi sair yàlla waxoon nañu ne na ngeen waxandiku seytaane ndax seen noon la moom daal am fexem yëpp du dara lu du fexe ni ngeen demee ba safara rek ngeen ànd faak moom gunge ko yàlla mu ci yàlla euh, mbokk yi seytaane nag li mu lëkk lëkkaloog mooy addina def ci boole yi nag bakkanu doomu aadama xaw ko yilif lool ba nit ci moomatul boppam waaye nag ñu jàpp ne jaam bi bu góorgóorloo tuuti rek yàlla mën na ko xettali ca la mu nekk ndax li ñu ci wax rek mooy yàlla kun bind ku nekk bu la bàyyeewul woon seytaane war ngaa mën a góorgóorlu ba texe euh, danañ ci nettali xikaaya bu ndaw tuuti rek ci jamono nabiyullahi idris euh, dafa amoon jamono boo xam ni jamono boobu bu doon doomu aadama bi defee bàkkaar da nga yëg ne ruuxam bu faatoo ruu gi buy yéeg day ànd ak xet bu yéeme yéeme euh, malaayikatul muqarrabuuna yi am ci ñoo xam ne dañuy yiij ji aadama bi ci jëf ji mu def lu la booleeg sa borom ba dugal la ci jëf ji bon ji nga def di ko xas yàlla ne leen su ma leen bindoon wàcce leen ci kaw suuf si def ci yéen yëg-yëg bi doomu aadama di yëpp dangeen ngeen def lu raw li ñuy def ñoom it ca seen mata bi ñu tontu yàlla ne ko ñun ni ñu la xame ak ni nga selleeg ni nga màgge ut tundoo nga di ñu wàcc ci suuf si ñu di la mooy boole la ak leneen yàlla ne leen kon tànn leen ci seen biir ñett ñi nga xam ne ñoo gën a ragal yàlla ñu tànn haaruta tànn maaruta tànn azrailu muy malakul mawt ñoom ñett lañu ñu désigné woon ne nañu dem yàlla dogal ñu wàcc ci kaw suuf si bu ñu wàccee baabila di àtte jaam ñi bu ngoonee ñu dellu yàlla dogal benn bés Azraayilu muy malakul mawti moom bi mu gisee situation bi ni mu doxee ak yëg-yëg bi doomu aadama di yëg yàlla def ko ci ñoom moom bi muy yëgaate dafa sujjootal yàlla téeméeri at mu ko maa ngi lay jéggalu sama borom dama bëggoon nga delloo ma sama place yàlla nangul ko loola ma waxoon Qaabil ak euh, euh, nu mu tuddati Haaruta ak Maaruta continué ñoom seen mission ci kaw suuf yàlla nattu leen benn bés fi ñu toog di atte am jigéen ju jàppante ak borom këram yàlla may ko taar boo xam ne yéeme na ba jéggi dayo bi ndaw si dugg seen li nit di yëg ñu yëg ko sàkk ko ndaw si pour ànd ak moom ndaw sa ne leen nag mënuma ànd ak yéen lu dul ne da ngeen maa jox juróomi sart ñu ne ko sart yi ban ak ban la mu ne leen sart bi ci njëkk mooy da ngeen may jox secret bi ngeen di yéegee di demee ci kaw di wàcc ci suuf ñu ne quoi ah, secret boobu ñemewuñu ko joxe ndax suñu borom moo ñu ko jox mu ne leen comme du ngeen jot ci man ñu diisoo ci seen biir ne nañ ko jox secret bi te jot ci ñu jox ko secret bi mu ne leen da ngeen di atte atte bi jox ma dëgg jox sama jëkkër fen te jëkkër jaa amoon dëgg ñu atte atte ba safaane ko moo tax kuy atte yaa ngi ci erreur parce que boo mënta atte dëgg waruloo atte ñu atte jël dëgg ga jox ndaw si jël fen wa jox borom këram mu dem ñàkk jabaram muy ñaareel bi tooñ ñetteel bi tooñ ndaw si na leen bala ngeen ànd ak man da ngeen di sujjóotal xërëm gi ñu ne ko ñun buur bu tedd bi ñu bàyyi ci kaw ak ni mu bañee ku ko bokkaale wax dëgg yàlla ëppale nañ suñ bopp di sujjóotal keneen ku du moom ndaw sa ne leen kon ba tey du ngeen jot ci man ñu xoolante ci seen biir ne nañ ko def ngir malgré ñu def ko mu ñetteel bi bàkkaar yàlla nattu leen ndaw si ne leen da di naan sàngara bala ngeen a ànd ak man ñu xoolante ci seen biir ne naan sàngara garaawul nañ ko naan te tuub ñu naan sàngara sax yàlla nattu leen ñu ne nañu sëy ak ndaw si kon ñu njaaloog moom bi ñuy njaaloog moom am xale bu leen gis yàlla dogal bi leen xale ba gisee ndaw si ne leen ak fi sama tur toll ci dëkk bi xale bi du génn mukk di ma weeje dab leen ko ngeen rey mu dab xale bi tuur deretam ngoon jot ñu sikkar sikkar ñoo dem ñu ne yàlla lu xew yàlla ne leen yéen ñi doon yëj ji doomu aadama yi juróomi bàkkaar yi ngeen dajale def ko ci benn yoor yoor doomu aadama yi am na ci ñoo xam ne sax li seeni bàkkaar di bari bari juróom yi ngeen def duñ ko def kon mbokk yi ku baax ko ne yàlla moo la teg loxo ku baax ko ne yàlla moo la dimbali waaye seytaane moom du fet du tay du tay yi mukk di feddali ngembam ngir daane ab jullit di seet fu ko mën a jaar pour yóbbu ko safara waaye yal nañu yàlla musal ci moom euh, ñu nekk nag ci weer wu tedd weer wu bari ay ngëneel woo xam ne xeetu sallallahu alayhi wa sallam suñu ko xamoon dinañu ngéejoo sax mu doon at ndax li ci yàlla def defu ko fenn ci wenn weer euh, dinañu di nett li benn histoire bu ndaw yonent yàlla Moussa alayhi salaam dafa am benn bés mu dee yàlla ak boromam ne ko yàlla ndax teraanga ji nga ma defal defal nga ko kenn ci ñi nga bind man yaakaar naa teraanga ji dootoo ko defal ku yàlla bind yàlla ne ko am na xeet wuy ñëw ci mujjug jamono di xeetu sallallahu alayhi wa sallam jox naa leen weer woo xam ne Moussa weer woo soo xamoon la ma ci def dañu ngéejoo bokk ci xeetu yonent bi yonent yàlla Moussa ne ko loolu mooy wan weer yow yàlla yaa ngi wax ak man euh, yàlla ne ko yow Moussa yëgoo ne xeetu sallallahu alayhi wa sallam suñu wooree ba ngoon jot ñu téye seen war a dox bi ñu naa allahuma lakka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faxfir li ma qaddamtu wa ma aqartu man yàlla ci laay teggi kiiraay yi doxoon sama diggante ak ñoom yow su may wax ak yow danaa jël juróom-ñaar fukki junni kiiraay doxale ko ci sama diggante ak yow kiiraay nag mbokk yi mooy xijaab suñu ko xamul mooy paravent moom la yàlla di doxal ci digganteem ak yonente yàlla Muusa suy wax ak moom te yàlla kat àggoon na ci yonente yàlla Muusa foo xam ne su daan ak moom moom yonent yàlla Moussa nee na yax ya sax da yëg ni yàlla ngi wax ngir neexitu kàddu ga ndax wax nañ ne bi ko yàlla di doog a yónni ñu ko yaa Moussa faqla na alayka innaka bilwaadi almuqaddas itwa wa ana xtartuka fastami lima yuha ilayya innani ana allah wax nañ ne Moussa bi mu pare ci déeyaale boobu toog ni ñeent fukki fan ko wax ak moom mu wàcc moom yonent yàlla Moussa kon xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañ ci weeru koor heure boo xam ne su jotee yàlla dana leen nangul ñaan beneen bi ci des mooy yonent bi sallallahu alayhi wa nee na fu guddi jotee ci xaaj bu ñetteel bi yàlla dana wàcc ba ci asamaanu benneel nee na ana ci yéen mooy jéggalu ma jéggal ko ci yéen mooy laaj ma jox ko mbokk yi laaj nag bu ñu defee na ñaan yàlla da ngay ñaan léegi mu taw ci sa kaw déedéet yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon ud'u llaha wa antum muuqinuuna bil ijaaba waalamu anna allaha laa yastajibu bi qalbin gaafilin laahin yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon na ngeen ñaan yàlla te am kóolute ci ne may na leen ni ngeen ko ñaan waaye nag yàlla am na fayda ju day ni du sotti li muy joxe ci ndab lu ci lim kon mbokk yi kuy ñaan da ngay laabal sa xol teewlu yàlla mel ni muus mu gàpparu di rëbb janax bañ mu rëcc ko ngir reeree ko kon mbokk yi kuy ñaan yàlla dafa am qualité yoo koy ñaanee na place ba set na màkkaan ma set na xol ba set nga tàllal yàlla loxo te yéene mbooleem jaamam ñu jàmm soo ko defee yàlla defal la li nga bëgg ah, kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci seen émission bi nga xam ne moom lañ leen doon defal ci seen shahru ramadan al mubarak doon leen ko defal ci seen émission bi ñuy wax shukran ci dakar midi point net di gërëm mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci internet bi di gërëm ñi nekk ci biti réew ak ñi ci biir réew fu fi waaye mën a nekk sa jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu liñ ciy jëf muy jëf yu baax yàlla na ñu ko yàlla fulal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu